asalaamaaleykum ami internet u Saint Louis TV man la la siste tuuti présentatrice maa ñëwaat di leen présenté waat seen deuxième numéro émission li ci kër gi tey li ci kër gi dafa nekkaat une émission boo xamante ni dafa spéciale tey dañoo jéem dépassé lañu tey kër gi ndax nee naa la Saint Louis TV moo demee ni ni mel ma dalal nag ndaanaan kulli fadirin di sama mag di sama xarit di porteur de voix ñu gën ko xam ci Meissa Seck alias Kilseka animateur tey moom mooy doon sama gan ci émission kër gi bu ne saa nag ma dalal ko ni ko Meissa Seck asalaamaaleykum sang bu baax bi. waaleykum salaam sista Tuuti maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñooy topp seen télé bu mag bi ñuy wax seen louis TV. Saint-Louis TV mhm. bu ñëw ba ci buntu pom bi nii. daanaka agsi na fi mu dëkk nag. waaw ñooñu ci ndar bi. waaw di la wax tafadal di la nuyu di la xaar ci waxtaan wi daal. d'accord ginnaaw ba ma la nuyee dalal la jaajëfal la bu baax a baax Seck tey li ma fi tax indi ci suñu émission bi nee la émission bi day doon émission bi spéciale ndax li ci kër gi nak lañu wax ndax lu bi ñu nee kër gi bàyyiñu dara lepp lo xam actualité du jour la rek dinañ ci dox tay suñu thème du jour bu ñu fas yéene waxtaanee promotion canapé te bu ñu nee promotion canapé en généralement ci ñun animatrice yi lay ëppee cas boobu noonu. ma lay laaj sa première partie loo xam ci promotion canapé Kimseka. ok sa émission bi turu émission bi si boppam moo am solo. ndeysaan moo ne li ci kër gi. Mhm. dafa yaatu yow de bés bu ne. wala chaque heure am na thème boo war a mën a débattre. bi nga dugg te ji wax dëgg yàlla dafa am solo trop. muy promotion canapé yaa ngi ko limité sax si ay animatrices déedéet weesu na foofu. promotion canapé mooy képp koo xam ni danga bëgg am dara kala jox chantage la jaar ci ci sàkku la. wala mu def la loo xam ne daal dëppwul ak diine pour nga mën am loolu nga xam ne moom ngay sàkku loolu na boo gisee dafay nekk responsabilité partagée ki nga xam ni mooy def promotion canapé ak ki niy def promotion canapé ñoom ñoo ku si am nga si responsabilité bu rëy rëy mais kin lan mooy responsabilité ci ñoom nga xam ni mooy def promotion canapé di di di di nax ku jigéen ki. pour pour ni da kay jox la nga xamni mom lay sakku am na responsabilité lan mooy responsabilité am yow da nga am ay sœur yow da nga am yaay yow da nga am ay mak yu goor yu jigen mhm. yow da nga am lo xamni da nga ko yoré wara wut déjà ku liggéey liggéey bi de façon concrète nga xam liggéey bu baax lay né nga ni mais seetoo loolu yow par exemple bo jëlé par exemple ki nga xam day def casting dafa am ben scénario bu mu taxawal ba paré ni man nit kii laa soxla ku jigéen kii nga xam ne nii la war a mel taille bi la war a am teint bi la war a am dégagement bi la war a am style bii la war a am nga jël ko yëpp teg fële jigéen ñëw boo xam ni style bi mu amee ak bi nga bëgg bokkul dara waaye xemmeem nga ko rek nga ni léegi da nga koy defal da nga fexe jël ko pour nga jël ko nag laajoo ko xaalis laajoo ko dara mais boppam nga ko laaj moom danaa ñëw ci responsabilité waaye ku góor kooku xam nga ni wane na fa matadi gu rëy. irresponsable weesootul ko. irresponsabilité benn ñaar mooy

ci la nga xamni mom nga soxla ak ci la nga xamni mom la liggey bu laaj bu ko mene nga jël bu ko mënul nga bayyi bu fekke da nga bëgg wax ak mom leneen nek ci benen cadre waye bu liggey bi tax boko bu ko taxé rek da daal nek promotion canapé mais kin est ce que loolu jàppuloo ni jay sa ngor la parce que ko jay sa ngor man ma ngi ba tey si ki kii ki nga xamni ni mhm. ba tey maa ci responsable di nga xamni moy def promotion canapé moy ku gor ki ku gor ki si laa ne ci la ne ku jigéen ku ma ku jigéen nga ñëwaguma wa d'accord allez on y va manam même bu fekke ni dama ni affaire nit kessela nit kessela diggante nit ak nit waroo dawale loolu war nga dawal maanaam même boo amul diine war nga dawal conscience xam ni li ngay def nii di lu baax. waaw te te maanaam nit daal mbub mi ngay sol nit mi nga bëgg solal nit ki natt ko sa bopp rek bu cëkkee bu ko sol bu ubbee bu ëppee bu ko sol léegi nag damay ñëw ci responsabilité bi nga xam ni mooy ki nga xam ni moom la defal. Euh, promo moom la ñu def promotion canapé. waaw balaa ngay ñëw ci loolu. xam nga dañuy naan lu jig njaag yéen la ndax yéen góor ñi. yéen yéen mooy ñan yéen góor ñi yéen guy wala yéen i Dakar yéen i guy ak yéen i Dakar yéen la mais kin bu dëgg dee dëgg rek waaw man déglu naa la ci sa contribution ànd naa ak yow fi nga ko téye foofu nooy na nekk mais yow góor nga xam ne jigéen mooy sa yaay am nga rakk bu jigéen maa mag bu jigéen ba nga tiimee jigéen amoo benn xel bu ñaaw xel bu rafet boo ci xalaat lu dul lu ñaaw loolu sax dafa ñaawul mais fan ka defee moo ñaaw ndax bu ko takkoon ñaawatul. mais defin defin bi moo ñaaw bu ko takkoon ñaawatul. léegi loolu ma ñëw. dafa dafa moom sëy bi la wax dafa ñaaw. mais bu fekkoon daf ko takk mu nekk soxnaam sëy bi du ñaaw defin wi moo ñaaw déggoo ma wax di maanaam bul wax nga ni dënk tiim di def lu ñaaw loolu ñaawul fa mu prétexte bi mu ko defee moo ñaaw yaa ngi may dégg bu baax a baax. waaw responsabilité. demal la sànq dafa partagé nga ne ma luy jéen jaaga te yéen jaag yéen la ma ne ko yéen guy wala yéen daxaar nga ma yéen daxaar yéen guy yëpp waaw xam nga xam bu ma ñëwee ci responsabilité jigéen ñi bukki bu dabee njool ca doxin wala bukki bu dabee njool ca doxin wala alakuli xaal xam nga lu tax ma wax la ko maanaam yow jigéen jigéen ñi ci ñi ma ko sañ wax dañ nekk ñoo xam ni dañuy dañuy dañuy roy dañuy roy dañuy toppandoo roy sax baax na ndax boo royee ku raw raw waaye dañuy toppandoo maanaam gis nga sa moroom def lii bokk leen capacité bokk leen yar bokk leen éducation bokk leen fi ngeen génne bokk leen société bi ngeen génne socialement nga ni da nga koy roy sol na lii wala def na lii télé rek ala kulli xaal danaa mel na moom déedéet léegi nag yow nga ni jaral na ma lépp ba lii mu def ma def ko daa si dem daan la defal promotion canapé té du tax nga ag fo mu ag ndax mën nga mën mën nekké série la sax mën nga genn jouer comme limu jouer té do am succès bu mu am yalla moy may ah, lolu deug la sa nit da ngay doylu rawati ni jigen jigen manam da nga war am loy bañ sa der yow da xam nga ni bu fekkone ni promotion canapé bëng ka am nga ko légui ba paré ag fenen fu nga wara ag lu tax defo ko bëgguma ko ndax yarin bi du ben kon kay weñ nga nga baña ca baña xaan nga manam jigen da nga war sa der bi nga sam ko yow yow manam yow ngay sam sa der daal waroo maye kanam sax parce que am na xam daal lu ñew di wut ci liggey waye yow même bo len xeme me do len ñame wax do len ñame wax yu ñak fayda. dëgg la lu tax loolu. suuf yi ful la ak fayda bu mu amé bi. buy dégay mel ni bukki bu débé njool ci doxine wala. waye bo ñewé yow par exemple di def ci euh casting wala dara. Mhm. wala nga ñew rek manam di def ci entretien. sol lo xamni danaka sa cër yep ngi ci biti. génne paccal góor góor la. xel nekk si te mu wóor que ni kii pour mu am lii dalay dala dala naan dala naan lii ngay wut naa la ko jox. te loolu mënul pour mu am lii pour mu am lii. waaw loolu mënul woon ñàkk moom mi sol loolu yow bul xool li mu sol yow xoolal rek. sa diggante ak yàlla non ñëw naa ca ñee ba pare ci góor ñi. waaw kaka sol léegi laa ñëw. góor góor la nit la nit la de taaja boon àllay. non déedéet déglu ma ma dama lay waxtaan dama ni yow ki ñëw. sol lu bon nekk jigéen taxaw mu wóole ni kii jigéen la jekk rafet def yëpp ba pare xoy met la xam nga yéen a yéen maanaam dalay dalay maanaam ki la waaw am na yoo xam ne sax mën ma ko wax fi waaw waaw la charmé te nga xam ne yow lii mu yor nii bëgg ko te pour nga am ko foog nga digal ko lii nga yor mooy une promotion carré bi loolu rek la moom bu ñëwoon ak fulla parce que euh, nit yow yaa war a gëm sa bopp gën a gëm gëm sa bopp nit sax kenn gëm boppam mais yaa war a xam sa bopp daal xam nga liggéey dañuy naan ak diplôme da ngay gis ki nga xamante ni jàng na ba ni ar ba tey ci promotion canapé la ñu nekk de jàng na ba ni ar nga gis Meissa Seck mi nga xamante ni tey bu ñu nee pip macha allah kenn dootu ko werante nga gis ki nga xamante ni day xeex Meissa Seck dem jël rakam teg ko fa ci li nga xamante ni moom lii mun na ko xam nga loolu yëpp ci promotion canapé la bokk. non promotion canapé moom boo ko déggee rek canapé bi foog mu am ci promotion canapé moom boo ko déggee.

ñu jox ko keneen koo xam nangu na canapé su ko defee léegi entreprise ba wala société ba wala dëkk ba du dox parce que kan ko jox mënu ko canapé lan ko jaar lan ko jaaree mu ñëw toog dégg wax ji nga gis koo xam day ubbi teleem soxla animatrice yu baax animatrice yu baax tam ñëw waaye mu mu am yu mu yu mu imposé nga bañ ñun la demal tooge ne bu ah, bëree na nga gis ay morom yoo xam ne yéen ànd mu wóor leen mën fuuf gis leen ñu génn di toj. yàlla dolli sutura. waaw lan yow tey boo ñu doon jox. pexe bi moom góor ñi moom mënu ma leen jox benn conseil. Ah, lu tax yéen. parce que weñ boo xamante ni defoon sec sa rakk du la parce que non baa ñu def ko sa mag du la neex. man góor ñi mënu ma leen jox benn conseil ndax li ma leen di wax ñoo ma gën a xam xam nga ngay ngay conseillé koo xam li nga koy wax moo gën xam fuuf jaru ko mais jigéen ñi nag laay conseillé. ok li ma leen conseil mooy booy defati entretien wala essa wala looy def daal. bu la dara jaral sa sa sa sa der bi ndax ëllëg ëllëg moo tax imagineel la promotion canapé ëllëg nga toj dëkk bi loolu toj toj dëkk bi moom boo ko gisee boo ko gisee bu gisee sa ay doom bu gisee sa ay sët addina dafa gudd tànka li ma lay wax nii xam na lool kon nag jigéen ji moo war a moytu ku góor ki moom góor moom. góor góor rek la na moytu bu moytoo rek dana moytu bi nan lay moytoo. yéen parce que nan lay moytoo kenn mënul raw. xam nga kenn mënul raw kenn mënul leen moytu. moytu bi li si jëkk ndax leen moytu moytu yéen yéen yéen seen pexe dafa doy. ginnaaw ba sa waajur def wutal la soubassement diine. nga jàng diine diine d'abord bu nekk si yow. lu bëri doo ko def ah, benn mooy kooku ah. mooy soubassement ba diine ji. Mm-hmm. bu diine ji weesoo nag nga doylu doylu tax ba tey si diine ji rek la. nga doylu maanaam bàyyi lu sa moroom am nga ni da nga koy am. kooku moom boo ko faree def rek laax dana la lakk maa la ko wax laax bu sedd sax moo lay lakk. loolu est-ce que bokkul ci waaw waroo ñee kenn xam nga kan nga war ñee sa bopp loo am rek na la doy boo amee 1000 francs na la doy sëkk boo amee jiin bi nga sol nii déchiré tubaarkàlla yem fa waaye nga ni léegi nga romb gis kenn koo xam ni jasineer la sol nga ni lii lay wuti da nga xam na la def am ko yow am na loo am moom amu ko te te te wanu la ko moom. doylu daal mooy base bi jigéen bu doyloo rek lu bëri dana ko dana mucc si lu bëri doylu manam bay bàyyi ñaanaatu yëpp doylu mo koy def rek bàyyi toppandoo doylu mo koy def bàyyi bëgg lo amul doylu mo koy def bo defee yoy yépp mën nga mucc ci promotion Canabi mën nga ci mucc xam nak nag lo am. manam bo doyloo. waaw. daa mën a mucc ci promotion Canabi. waaw. yamale sey bëgg-bëgg. waaw mooy doylu. mooy doylu ba tey doylu moo dafa diis. waaw diis na yamale sey bëgg-bëgg. waaw. xool ni lii fii la sa doole yam nga yam mooy doylu rek ba tey ci doylu la ñu waaw ah. waaw nga xool xam ni nii may sa sekk def ba am boo ko defee daa ko am ci amin bu rafet mhm. ah mhm. ndax may sa nu mu def ba am amin bu rafetam boobu ba ñëpp naw ko ko moom moo ko liggéey yow liggéeyuloo ko yow pourquoi pas yow mënoo liggéey sa liggéey nga amee ko amin bu rafet nga bañ a xool chantage buñ la ciy tegal bu mu la ko jaral liggéey jaral na nit di sacrifier boppam liggéey bëgg liggéey. déedéet déedéet bu mu jaral. est-ce jaral na nit di sacrifier boppam ba tey bu ma taxawee ñu ñu tuuti jom mee di dem bayi leen ko mu dem ndax fi mu jaar ba am lii lii la est-ce que jaral na ko nit. xanaa xamoo sàcc bi sàcc bi sàcc ba ba ba ba raw li mu sàcc sax bu teeyoon dana ko moom. effectivement sa nga am ko la nga jël ko yóbbu boo teeyoon daa ko jot parce que sa wërsëg la comme jël nga ko ba dem sàcc ko jaay ko mu jar sa wërsëg la boo teeyoon daa ko jot. maanaam doomu. maanaam dama la wax ni kii def promotion canapé am liggéey boobu bu toogoon dana am liggéey boobu. parce que wërsëgam la. dëgg la moo ko moom. waaw mais amin woowu moom ko defee moo ñaaw ma waaw daka foqati waaw te foqati nag lu nekk mën na si am. bunti bi bu ko ubbee nii nga war si jaar jaaroo si nga jaar si palanteer bi lu ne mën na la fekk mën na la jaawale sàcc duma la pare nga naan mën la tuuti la maanaam kon nit daal warul yàkkamti dara ci àddunaam. doylu <laughs> ba sama doylu ga day ñëwaat rek. jigéen moom bu doyluwul bu doyluwul boo amee jabar bu doyluwul lu ne mën na ko def lu ne. ndax day fekk sa dëkkaale am leer mu ni sa sa sa jëkkër sa jëkk dëkkaaleem am oto mun day wut oto. waaw mooy ba tey nee naa li ci kër gi lu ne la ñuy développé xam nga tey boo takkee sa jabar. nga tekki ka maanaam nga xam ne kii ci nii anim bee lañ ko takkee ci promotion canapé ngeen bokk service di liggéeyandoo nga dem ba takk ka nga xam ne kii nii lañ ko takkee est-ce que tey boo takkee sa jabar daa am ci moom confiance. kan kii def promotion canapé. waaw maanaam ko takk pour promotion bi canapé bi daal takk bi la. waa waaw léegi nga takk ko ba mu ñëw sa biir kër ba ngeen sëy si yéen ñaar. waaw ba nga xam ne léegi moom sa jabar la. lew na la yoonu yàlla nga war a tukki bàyyi fa sa jabar. No, demee est ce que daa. non boobu tur ma ko tuddee canapé. doo ko tuddee mais ci ci promotion man dagan promotion canapé mooy dan la canapé pour jox la donc yow foofu promotion canapé. waaw yow foofu da nga am promotion boo xam ci canapé nga ko jëlee dégg wax ji de. bokkul ak kii nga xam dafa di liggéey nga ka jox ko liggéey bi ah <laughs> mën na ne kooku boobu du canapé day def mën nga maanaam ci chantage bi nga ko takkee. ba muy ñëw di wut si liggéey. waaw la wax comme na nga chantage ko ci promotion canapé. yàlla def ba mbëggeel bi dox seen diggante mu nekk lu dëgg. waaw ah waaw nga dem mu nekk sa soxna mu lew la léegi. waaw xam nga liñ ma lay wax. waaw ba mu la lewee nga takk ko ba ngeen jur ay njaboot nga war a dem tey tukki bàyyi sa jabar nga xam ni kii nii nga ko takkee woon est-ce que yow boo demee sa xel dina dal. waaw xam nga jigéen gis nañu koo xam ne. loolu laa lay wax dafa nànk ji àdduna mooy yéene gis nañ jigéen boo xam ne euh, masul xam kenn dañ ko takk jànq jëkkëram tukkiwul sax mu nekk si dëkk bi di toj di toj dëkk bi di bëggee gis koo xam ne bandi la woon bu nekk ca àll ba di toj toj toj dëkk ba di bëggee ñu takk ka mu ñëw sell amatul sell waaw koy maanaam la nekkoon ci moom raxas na ko waaw koy moo tax nit kenn mënu ko dat xam la moo jar ñaan mujj mujj mujj rek njëlbeen du dara. du dara waaw. mujj rek moo mujj moo jafe day gis koo xam ne sax jaamul yàlla jaamul yàlla jaamul yàlla ba quelques minutes muy dee mu def loo xam ne moo ko yóbbu àjjana gis koo xam ne dafa dëkk jaamu yàlla ba quelques minutes avant muy dee mu def loo xam moo ko yóbbu safara wa yaasu billah. mais kii bi wa yaasu billah wa yaasu billah fekk ñu koy nit say waaju defee éducation bi nga xamante ni war na. <laughs> nga xam ni yow am nga looy jommale sa bopp. nawle. Mhm. boo ko amee comme may sa man li ma la bëgg bëgg bëgg tey am naa loo xam te ni maa ngi la koy xoolee ndax sama nawle la. Mhm. rus naa jomm tey ñi taxaw ñiy wax nga naan bàyyi leen na ko. Mhm. loolu est-ce du nit moo koy sàkkul. moo koy sàkkul boppam jomb xam nga juddu gu rëy ndey baay waaye la ak fayda borom juddu gu rëy ndey baay waaye jomb borom yaa yaay def li lay nawee. dëgg la yow sa waajur yi maanaam deful la loo xam ne dara loo xam ne dana taasal taasal sa der. yow it fexeel ba sa ay doom yi ñëw. bul taachal seen der. loolu nag yaa koy liggéey sa yaay du ko liggéey sa baay du ko liggéey. loolu yëpp pour mu am foog nga am diine rek amul diine rek boo amee diine daa doylu boo amee diine daa baax boo amee diine daa laabiir boo amee diine daa yëwan boo amee diine daa bëgg lu baax boo amee diine daa bañ lu bon boo amee diine da ngay baax daal ci gàttal diine rek mooy affaire bi base bi. diine la yàlla ci diine bi rek nga ko teg diine nga lu diine indi kenn mënatul am loo lu si nit di teg non non xam nga tax diine lu mu indi mën a teg dara parce que diine du yëfu nit ki nu sàkk xam nga boo indee boo defaree garab sax garab ki defar garab gi dafa la benn comprimé ngay naan suba benn comprimé ngoon maanaam notice la lay jox ñun nag ki nu indi fi ki nu defar moo nu jox notice notice boobu mooy alxuraan alxuraan la nu indi diine nii nit ki nii la war a doxale parce que ki oto bi sax ki ko defar dafa lay wax ni vitesse war a dépassé heure bi nii la war a essence bi nii la war a toll la ñuy dawalee fii la ñuy la la nit la de kon ki la defar si kaw muy yàlla ni la ni la ni la nii nga war a doxalee nga war moytu fii nga war dem wara a dem fii boo ko moyee rek kon nag diine boo ko am nga lépp boo ko ñàkkee nga lépp. mais boo mooyee li suñu borom ñu wax. waaw defi di kon yow yow la neex wala. yàlla tam dafa am kum lu fi booleel dafa and ak seytane des fois nga gis ñi nga xamanteni dañuy def dara malgré ko ñu koy def. mais wa xam nga xam nga nit nit xam nga nit matul. wa nit bu maton rek day nekk yalla deug la. xam nga genn nga sax ci gaamu kon. wa parce que lu ci kër gi moo demee. wa lu ci kër wa kër gi rek lañu né lu né lañuy débat. wa mais nit nit euh mo mo mo imparfait yalla rek mo parfait bo parfait rek yalla ngay doon yalla mi nu bind mom xam ne ni ñun matunu xam nga la lay bañ nga nek ci ben erreur sax fa waaye nekk si yoon wi léeg nga jek jek dem ci da nga top tëli bi ba si ak nga dem ci piste bi ci wat dem ci ñag bi ci wat waye li bon moy nga dëkk sa ñag ba wala nga dëkk sa piste bi nek nek ci yoon wi tamit kenn mënu ci dëkk ndax yalla rek moko mën yalla dafa am kum mu nu fi bolel ko xamne mo nu fi jitu ay ay ay jitu fi suñu maam ñu koy wax iblis te dafa jamm yalla lu yagga yagga yàgg yàgg yàgg ba yalla fay ka te yàlla kuy liggéeyal mu fay la fay na ka nekk mu day dem day dem safara waaye comme mën yóbbaale dana la yóbbaale te iblis dafa yor yu ay matériel yu neex dafa yor ay musique yor yu yu xaalis yor loo xam ni nit ñi dañ koy xemmeem daal moo iblis mooy nit nit dana baax de waaye iblis de ko ëpp doole waaye nag moytu rek moytu daal moytu daal moytu rek moytu daal et donc kon Kinseka lay jaajëfal man mii maa lay jaajëfal ndax may ma occasion may nga ma occasion ma wax may gërëm bu baax a baax sa caméraman yi ñoom Maurice ak yooyu ñoom Gas El Salvatore ak ndax dama gis ni maanaam invité ma télé yu bëri daal mais ñoom yëngu gi ni yëngu nga xam ni ñii lii def dañ ko bëgg daw fi génn fi tàllal fii lii di ko di seet dama bëgg loolu daal waaw waaw te loolu tamit waaw ma leen di ñaanal ñoom it yàlla jàppal leen ba télé bi dem nekk vrai télé bu mag a mag a mag ñu koy seetaan ci àdduna wëlngal këpp yalla may len matériel yu gëna sophistiqué yu ñu yoré yow it yàlla may la nga am promotion bu reuy ci àdduna euh, promotion canapé noonu ya canapé ñeme woo ko yow doo ko def sax du ma la ko sant du ma wax sax du ma la ñaanal loolu même bu la ko du nangu parce que yow do def lolu man euh nit rek la xam te dañu yag nak deug la say bu ñu xamanto léegi léegi rek danaa mëna xam yaay kan rawati ñu la ay at fukki at du du du du fukki fan de. waaw waaw waaw. te nag bu la neexoon promotion canapé comme ñëpp ndax liggéey yi yor yëpp di ko canapé yaa ngi mën am nga ko. macha allah yalla yàlla dool surtout waaw kon euh, sama gaay ñu ngi leen di jaajëfal ami internet saint TV jaajëfal sama cameraman yu ñoom ñaaw yi nga xam te ni ñoom laa ci seen émission li ci kër gi li ci kër gi nak tay ñepp xam nañu luñ doon débat mom moy promotion FNAC bi ñu dalaloon daanaan Coly Fadrine mi meysa sek alias Kinseka nek animateur fee radio euh, rajo FM jaajëfal nañ leen sama gars yi kontaan joxati leen rendez-vous inshallah ci seen benen numéro li ci kër gi sama gaay man vous leen di ñaan maximum de j'aime maximum de partage daf may neex loolu su ngeen ma defal bisous bisous et bientôt inshallah